abonnez-vous sur notre chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes Ça, c'est diamba il y ay ba tey ci jotaay xibaar yi ñu wax nag lu ñeel nag verdict bi nga xam ne rek juge bi daal dina koy fësal démb rek ci kaw Ousmane Sonko ak kile ministre bi di euh, Mame Mbaye Niang ginnaaw gi sax nag la kile di maire bu Thiès Babacar Diop moome ci ab communiqué wane ko sax nag ci suñu nattaango yële ji waa nag Seneweb moome di wax ni kon li nu mel jeexul benn yoon la ñu bëgg rek mooy ñu rekk gën a wax rek jëm ci ñaar fukk ak juróom-ñeenti milliards yile ndax ñoom leerul benn yoon ci seen ay bët kon war nañ ko mën a xoolaat jom xam koppar googe fa lañ ko dugal ndax lañuy wax dëgg la wala du dëgg fi mu nekk nii moo waral nag mu daal di génne communiqué bi nu mel ndax ma wax ni sax askanu Sénégal war nañ leen mën a fay nag ci koppar googe wala sax ñu fay leen ci procès bi nga xam nag amoon na ci diggante Ousmane Sonko ndax nag ñu bare daal di nañ ci faatu itam ñu bare daal nañ ci am ay gaañu gaañu itam ñu bare jàpp nañ leen. ci loole mu mel ni sax dafa naxasal bu baax a baax li lee di koom-koom bi fii ci Sénégal kon war nañ ko mën a saytuwaat ndax gis nañu ay école ak université yoo xam ni sax jànguñu te loole teguñu ko fenn mu mel ni sax ñaawteef yooyu ñu nemmeeku fii ci réew mi nag Macky Sall moom lu jig njaag rek moom mooy njaag